Sister billahi min alsheytaani irrajim bismillahi irrahmaani irrahim wasalaatu wasalaamu ala ashrafi alanbiyaai walmursalin sayidina wa mawlana muhammad muhammad ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa xayri xadimihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul xuqdatan min lisaani yafqahu qawli wa jaal kalaami rashidan wa murshidan wa fikrati nawir wa qalbi arshida bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi ñu baaxoo topp altine bu jot ci émission bi nga xam ne yéen ko taamul seen bopp muy Serigne Touba ak ñi ngi am mbégte ak kontaan tey feggoowaat ak yéen e, ci jotaay yi nga xam ni baaxoo nañ ko di ko ànd ak yéen di sant yàlla bu baax ñaanal njabootu sëñ Tuubaa gépp jiital Cheikh Seydil Muxtaar di ñaan yàlla bàyyi ko fi lu yàgg lool ba yéeneem ci lislaam ji mu àggale ko fu kawe njortam te lépp mu ànd ko ak noonu buñ ko tuddee mel nañ tudd nañu islam bi yëpp ndax taxawaayam ci lislaam ak e, benn la jullit ñi noonu lañu amee mbégte saa yu nekk nuñ ko baaxoo di defee ànd ci ak ay boroomi xam tey ñu dalal kenn ci borom xam-xam yooyu muy Serigne Babacar Cissé Serigne Babacar Cissé moom mooy coordonnateur kuréel gi ñuy wax AIS jamhiyatul islamiya li xidmati tasawuf ñu am mbégte daral ko ci jotaay bi Serigne Babacar ñu ngi lay nuyu di la bàyyi nga nuyoo ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi seetaan aousubillahi min asheytan irajim bismillahi rahmani irahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani irrahim maliki yawmi din iyaka na'budu wa iyaka nasta'in ihdina siraat almustaqima siraat alladina anamta alayhim bi almaxdubi alayhim wala dallin mbokk jullit yi ñoo ngi leen di nuyu fu ngeen mën a nekk ci àdduna bi di am mbégte ak kontaan lool di daral gi nga xam ne moom la ñu wax Bichri TV dalal tey ci seen lokk yi fii ñu fas yéene waxtaan ak ñoom ci question yi ñu fas yéene laaj ma waaye gannaaw loolu euh, ñu ngi nuyu mbooleem xalif généraux yi nga xam ne ñoo ne ci réew mi yépp te ñu xam leen te ñun ñu nekk njaboot ci ñoom te lii nga xam ne moom la bëgg a tàmbali ci waxtaan wi buñ ci duggee di ngeen xam bu baax li ma bëgg a wax lan la ndax mission bi nga xam ne si lañ nekk di ko dox euh, ñu ngi koy def ci seen ndigal ñoom lañ ci am seen digal moo tax ñu koy def xam naa bu ñu duggee ci biir waxtaan bi dina gën a leer. incha allah ñëw fii itam euh, ci turu jamiyatul islaami li xidmati tasawuf bi nga xam ne tey euh, suñu mbokk suñu xarit maam Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba moom mooy président bi man ma nekk coordonnateur bi euh, ñu fas yéene waxtaanee tomb yi nga xam ne moom lañu fas yéene waxtaanee jamiyatul islaami li xidmati tasawuf nag. defe naa ne bu ñu ko bëggee présenté li ñuy jiital mooy fikra bi fan la juddoo. xalaat maanaam xalaat bi waaw xalaat bi mhm. fan la fan fan la jóge ah, ndax ñun ku ci nekk ci ñun da nekk ci kër ah, bokk ci kër ga. Mhm. Ah, nekk fa yow sax mel na ne waa jaamal nga. waaw am na ñu bari ñoo xam ne xam nañu jaamal. Mhm. ci diine ci mm-hmm. ci ci ci yëngu-yëngu ah, l'islam ci ah. Sénégal ñi xam taarixu réew mi dëgg-dëgg mm-hmm. Mm-hmm. Eh, jamhiyatul islamiya bi eh, boo nekkee tey coordonnateur bi loolu yàlla na defe naa ni ndax waa jaamal ñu am cër lañ ci diine lislaam waaye dëgg-dëggi kuréel gi ñu bari xamaguñu lan moo ko wundu ak lan moo doon ay eh, activité am waaye nag kañ lañ ko sos waaye li nga wax léegi xalaat bi ci fan la jóge waaw euh, jërëjëf ndax mbir euh, balaa nga dugg ci biir waxtaan bi jaadu na nga taarif mhm. li nga bëgg a wax mhm. mooy lan ba nit ñi man ko xam euh, bu ñu bëggee taarif jamiyatul islami li xidmati tasawuf fikre bi fan la jógee euh, alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax ndax mbooloo dana ñu ne ku nekk fa nga nekk nga am xalaat pour war a def dara war a jëmmal mbir waaye ci biir mbooloo moomu xëy na yàlla mooy feeñal kenn xalaat boobu mu yëgati ko euh, ndeke bi nga koy yëgati fekk ne loolu lépp mu ngi nekkoon xol yi ci xalaat yi loolu laa bëgg a wax ne maam Cheikh Mbacke Khadim Awa Ba mi nga xam ne tey mooy président wu jamiya bi moom euh, moo génnee xalaat bi bi mu ko génnee itam mu jaral ko mu sol dàllam dem ci këru diine yëpp fekk fa ndaw yi nga xam ne ca kër ya ay responsable lañ bu mën a responsable nag mooy euh, ñun ñi ñëpp ku ci ne kër ga nga bokk tey bokk nga ci ñi nga xam ne yaay ñay jëmmal lafay activité religieuse ci kër googu dëgg la donc nga nekk ndaw boo xam ne ku ñu ràññee nga ci kër yi yàlla def moom itam mu sol daalam dañ kër yëpp euh, fu mu yegg rek bu mu génnee bu génnee xalaat bi dafay mel ni ki koy dalal lu mel noonu moo nekkoon ci dënnam mm-hmm. kon loolu mel na ni yombaloon na liggéeyam moom mm-hmm. euh, bi yàlla defee mu génnee xalaat bi wane ne mag ñi am ci réew mi nga xam ne tey ku ci ne si ñoom euh, boobu benn parenthèse bu ndaw rek lay def ndax damay wax ne Sénégal mag ñi ñu fi am dañoo bokk lislaam mhm. te mbokk ci lislaam moo ëpp doole mbokk ci deret ndax bu ñu xoolee ku ne si ñoom euh, yàlla dafa def mu jóg di sàkku xam-xam di wër yàlla ba dajeeg keneen ku mel ni moom Mhm. loolu jur kóllëre gi nga xam ne moo jur kóllëre gi am ci mag ñi yëpp ndax man mii di wax a yow sama maam El Hadj Abdoulaye Cissé Serigne Jaamal maam Mor Anta Sali jàngal na ko. Mhm. donc jóge na Saalum dem ba Mbàkke Kajoor jàng ci moom. Mhm. kon nga gis ne kóllëre googu démb la woon. googu itam juróon ay relation ci seen biir. kon nag ñun tey bu ñu ñëwee ba indi relation bu mel noonu. dañuy wax li arab ji doon wax rek at taarix yu'iidu nafsahu dëgg la dañuy mel ni dañuy dekkal. Mm-hmm. Euh, sunna soo xam ne amoon na fi démb waaye duut sunna su bees ñu sos léegi nag xalaat bi li ko tax a jóg dañoo seetlu na dafa am jamono euh, mu mel ni nit ñi dafa am ñoo xam dañoo commencé sentir na këru diine yi euh, xëy na dafa dañoo jàppoon sax dañuy nelaw ba mel ni dafa am ñeneen ay nit ñoo xam ne dañuy am yeneen xalaat yu bees mm-hmm. yoo xam ne dañ ko jëlee bitim réew bëgg koo indi ci réew mi wane ne mag ñi ñu am ci réew mi seen lislaam setut seen lislaam leerul te dégguñu diine te ñi ëpp si ñuy wax loolu mën nañu wax ne genn wàll gi fi lañ leen formé. li ëpp mhm. ci lañ jàng ci réew mi lañ ko jàng door a génn bitim réew. kon nag bu ñuy del si waatee bëgg a wane ne mag ñi ñu am ci réew mi. Mhm. seen lislaam setul ñu ñuy dundee diine méngoot ak ni ko lislaam santaane loolu nag dafay jaadu ñu nit ñu génn leeral lu mel noonu foofu la xalaatu association bi juddoo. Mhm. maanaam pour defendre mag ñi. Mhm. maanaam ci seen ci seen i position yi ñu amoon ci lislaam wane na génnul alxuraan wane na génnul sunna te itam mos ñoo def lenn lu safaanu yonent bi kon ñi ñëw bëgg wane na mag ñi liñ ne du diine wala du du du sunna mhm. dañoo jàpp ne ñooñu la nekk seen gannaaw xëy na nit ñi xamuñu ko mhm. waaye dañoo gëm mooy xalaat yu bees yi nga xam ne mooy xalaat yu bees yooyu tey it ñaareel xalaat fu mu juddoo rek ñaareel dana am ku ne ci gannaaw koo xam ne moom mooy bénéficié wu ci xalaat yi mel noonu su defee ñi koy wan ñoom dañu jàpp rek ne lii ay xalaat yu bees la yoo xam ne da fekk nag ñoom ñi koy véhiculer mm-hmm. am na ñu ne seen gannaaw yoo xam ne intérêt yi ñu am ñi ñu koy wan duñu gis loolu loolu nag moo waral mm-hmm. ay yes juddu mm-hmm. ah, ñu jóg vraiment di éveiller conscience nit ñi pour gën leen a xamal ne mag ñi lañ nekkoon génnu alxuraan ay yes daal kon bu ñuy ah. xool mm. moom li ko tax a jóg moom mooy fësal njàngaleem. njàngaleem njàngaleem mag effectivement ak ak ak ak ak ba nit ñi xam ni. Mhm. ñoom si liggéey seen liggéey moom moo doon lislaam kepp. Euh, bañ indi yeneen yoo xam ni yu bees la yu ñu fiy indi yoo xam ni euh, bokkut ak li nga xam ni mag ñi daan nañ ko dund te jàpp ni loolu sax moom mooy dëgg-dëgg yi lislaam mhm. kon loolu defe naa mooy yëngu-yëngu. AIS moo tax ñu sos kuréel gi. moo tax ñu sos kuréel gi. ko sosee it nan nan nan lañ ko tëralee ak lan moo doon ay activité am. waaw xam nga biñ ko sosee. xam nga tey defe naa ne képp ku xam association wala kuréel gu war a dox d'abord ci li mu war a njëkk a tënku. Mhm. mooy leen structurer ko waaw bu ñu ko structurer mooy tax mission bi ñu mën ko xam loolu itam mooy tax mission bi mën a yomb bi nga xamee ne euh, xalaat bi judd na ba nga xam ne ñi ci war a bokk yëpp daje nañu li ñu def mooy teg kuréel gi nga xam ne moo war a moo war a saytu xalaat bi nga xam ne wala xalaat yi nga xam ne ñun moom la ñu am si la ñu li ñu tuddee bureau. ndax lu nekk dafa am organisation mhm. waaw si lañ tuddee am lu ñuy lu ñuy tuddee bureau après bureau bi itam am lu ñuy tuddee comité directeur comité directeur boobu itam ñooñu ñëpp ay membres lañ ci biir mhm. ñu paree itam ñu am ay sage yoo xam ne ci ay mag lañ yoo xam ne xëy na deplace leen yombul mhm. waaye ñun ak ñoom ñoo bokk xalaat bi te itam luñ ne ñoom sa lañ ne te itam fu ñu toll ñu ngi leen defal compte rendu noonu la ñuy tegee bureau bi président Mame Cheikh Mbacke moom moom la yàlla def nekk président bi euh, ku ñuy wax Serif Fadal Aydara moom mooy vice président bi Euh, ku ñuy wax euh, Sidi Ahmed si euh, caatu suñu Abdou Aziz Sy Al Amin moom mooy secrétaire général bi ku ñuy wax Hadi ñas waa Kaolack la moom mooy trésorier général bi ku ñuy wax Ahmed Khalifa ñas moom mooy moom mooy vice président moom mooy vice secrétaire général bi donc noonu la tëddee. ñooñu mm-hmm. ñoo ne ci bureau bi ak ñeneen ak ñeneen comité scientifique ku ñuy wax Baye Niass moom moo ko jiite. kon da ngeen jël fenn fu ne rek ngeen jël fa kenn ku nekk rek am na ku ñu jël ko xam ne responsable ci benn mm-hmm. ci benn poste ci poste yi mm-hmm. noonu lañ ko noonu lañ ko tëralee mm-hmm. donc mission bi itam ni ma la ko waxee euh, du dara lu dul défendre mag ñi waaw li nga xam ne moom la fi mag ñi doon jàngale ñu xam ko nan la ñu mën a fexee ba sauvegarder ko ba dérive yi gis muy jógee bitim réew wala ci biti nar a ñëw faagaagal li ñu xalaat ne ay idéologie la te mag ñi tegoon nga fi ñu fexe ba loolu du am loolu nag li ci jiitu mooy def campagne de sensibilisation dem ci kër yi xamal leen ne mag ñi liñ fi jàngale woon liñ fi doon yare nit ñi téye woon njaboot gi génnutoon alxuraan génnutoon sunna ba nit ñi gën a xamaa ne lépp lu luñ gis lu wuteeg loolu nit indi ko rek dañu xam ne li fi mag ñi bàyyi wala li fi mag ñi indi woon génnut ñaari yooyu moo alxuraan ak sunna parce que alxuraan mooy li jógee ci yàlla sunna mooy ni ñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te dañu sunna ñett la lépp loo xam ne yonent bi wax na ko mhm. wala mu def ko mhm. wala ñu def ko ci kanamam mu rafetlu ko mhm. ñett yooyu mooy sunna te gis nañ ne mag ñi seen jëf yëpp génnul loolu génnul sunna islam bi ñu am islam bu tolérant la boo xam ne amul violence amul boddiwante amul amul amul xatalaate donc islam la boo xam ne dafa xaajoo ñëpp te itam islaam loolu la santaane. kañ ngeen sos kuréel gi. waaw kuréel gi ñu ngi ko sos 2015. Euh, euh, août 2015 lañ ko sos. fii ci Ndakaaru am nañu siège boo xam ne fa la ñuy dajee ñun ñëpp siège bi mu ngi nekk ci yoonu aéroport bi siège social bi. Mm-hmm. Euh, bi ñu ko sas itam amuñu benn financement ñun ci suñu biir ñooy daje di cotiser ak itam lépp loo xam ne war nañ ko def comme activité ñu ñu am comme ay kilifa te ñuy suñuy kilifa. Mm-hmm. am na ñu ñu siy jàppale ndax yàlla xam na ne bi ñuy bi ñuy door a sos kuréel bi tournée bi njëkk a def sëñ Abdou Aziz Sy Al jàppale nañu bu baax sëñ Sidi Makhtar Mbacke itam jàppale nañu bu baax. sëñ Bass Abdou Khadre kilifa yi ñu am daal te ñu ñu ñenn ñi di suñu ay wayjur mhm. ñenn ñi di suñu ay mag lépp luñ dugg ñooñu ci jàppale ñoo leen ci jàppale bëggoon naa nga wax kuru turu kuréel gi mhm. ci wolof jamhiyatul islamiya di xidmati tasawuf pour mu leer ci mbooloo mi nga eh, mbooloo mi nga xam ne dañoo ànd ngir jëmmal tasawuf mhm. waaw te tasawuf bu ñu ko waxee day dellu ci baat bu ñu al ihsaan te ihsaan xaaj la ci xaaju diine yi nga xam ne tey jullit bi defe naa ne mënoo gëm diine te xaaj boobu gëmoo ko. Mhm, ñetteelu xaaju diine ñetteelu xaaju diine te mhm. mag ñi itam ci loolu la ñu tënkoon maanaam islam bu baax bu rafet bu sel si la ñu nekkoon si la ñu yar seen njaboot si la ñu yar seen i taalibe bi. ginnaaw boo leen ko sosee ak léegi. Mhm. lan moo doon activité. waaw kuréel gi waaw première activi activité bi ñu njëkk a def mooy xam nga mbir boo ko njëkkee boo ko sosee li ngay njëkk a def mooy informé nit ñi. si lañ créé benn caravane. waaw caravane boo xam ne. objectifu caravane bi mooy fexe ba kër gu ne ñu dem fa. Mhm. ndax dañoo baaxoo loo xam ne ci réew mi ne mooy boo amee kilifa euh, waroo di nangu ay nit di la jiitu ci noppam. dëgg la waaw loolu moo tax bi ñuy sosee kuréel bi liñ njëkk a def mooy sol suñ dàll dem ci suñu ay kilifa wax leen ne lañ la ñuy ñaanoon lañ bëggoon lañ ñëwoon ngir ngeen ñaanal ñu ci loolu taxawal nañ ko. yoon bii la ñu bëgg a jaar donc leeral leen mission yi nga xam ne moom la ñu bëgg a def yëpp mhm. ba duñ jékki-jékki rek dégg ko ci àll bi ku mën a ñëw ci gannaaw itam mhm. bëgg indi leneen wane ne ci loolu lañu ne ñoom danañ xam ne ñun te lañ leen tàggu woon ci loolu rek lañ ne loolu moo tax premiere activité bi ñu njëkk a def mooy tournée de sensibilisation euh, tournée boobu nag dem nañu Touba gis ak si di Matar mu defal ñu ay ndénkaan yu am solo mhm. ne lii ngeen tàgguma de feeg yéen a ngi ci li mag ñi nekkoon ndam rek ngeen ci am. bu mhm. ñu fa jógee itam ñu dem Tiwaawan sëñ Abdou Aziz Al Amin wax dëgg yàlla kontaan lool wane ne lii sax ñun sosoon nañ ko fi waaw mu wane na moom ak sëñ Moustapha Cissé bi génn àdduna tey ah, sosoon na ci lu mel nii ndax itam dañoo sentiroon na réew mi ah, ñi nga xam ne ñooy ndongo daara yi ak arabisants yi cër bi ñu war a jox ci réew mi joxuñ leen ko léegi nag ñoom ñu sosoon kuréel yu mel noonu di ko doxal ba tey réew mi. cër yi fi am cër yi nga xam ne jàngkatu arab wala nitu diine am nañ ko fi combat yi nga xam ne ñoom doon nañ ko mënee loolu bokk na ci tax ñu am ko kon nag ñun bu ñu ñëwee mm-hmm. nekk seen njaboot mm-hmm. sosaat lu mel noonu mm-hmm. dañuy encouragé ci mission bi nga xam ne moom lañ nekk euh, jërëjëf sëñ Babacar mel na ni euh, leeral nga kuréel gi bi nga xamee ni sos nañ ko ak it yenn ci dox yiñ dox ci dem ci këru diine yëpp. Mhm. ak informé mboolem kilifay diine yi. Mhm. waaye mel na ni ak bu ñu tegee kuréel gu mel noonu toll noonu ci réew mi war naa mën a am programme nag. Mhm. boo xam ni loolu mooy doon seen vision. bi nga xam ni bëgg nañ ko atteindre. maanaam li ñu soxla pour def ko. ana loolu lu doon. waaw xam nga programme bi moom li ciy jiitu mooy ñu fexe bu sauvegarder. sauvegarder maanaam eh, maanaam ñu téye. li nga xam ne. moom moo fi doon cosaan ci kër yi. loolu nag bu ñu ko waxee loolu nag bu ñu ko mm-hmm. waxee li ci jiitu mooy daara. Mm-hmm. mooy jàngaleem alxuraan bi mooy fexe ba taxaw ci yaru yaru diine. Mm-hmm. fexe itam ba ñaax nit ñi maanaam ñuy liggéey. parce que itam nit ki gannaaw bi nga jàngee gannaaw bi nga xamee la cay topp mooy liggéey parce que liggéey mooy tax nit ki mën a sàmm ngorom. mën a sàmm diineem ndax itam Kocc Barma daan wax ne ku la sañal. ku la ku la sañal. manal manal la. Mm-hmm. te ku la manal. Mm-hmm. yab la yab kon nag mm-hmm. loolu moom mooy première chose bi nga xam ne euh, moom mooy suñu premier objectif. maanaam fexe ba daara yi ñu dund laal leen fexe ba njàngaleem diine saxaat ci réew mi fexe ba yar yi nga xam ne moom la mag ñi daan def ci njaboot yi. fexe ba yar yooyu ñu taxaw ci. waaye itam euh, fexe ba euh, njàngum arab wala njàngum diine ci réew mi gouvernement yi fi ne gën ko jox gëdd. Mhm. waaw gën ko jox importance xam ne itam dafa nekk benn bànqaas boo xam ne dafa bokk ci réew mi koy ni tam yeneen njàng yi ni ñu leen joxee importance ak fulla njàngaleem diine war nañ ko mën a gën a jox importance ak fulla ci réew mi parce que loolu itam dafa nekk héritage boo xam ne mag ñi ñu xam ci réew mi loolu mooy seen dono loolu itam dafa bokk ci suñu ay programme maanaam ñu fexe ba éveiller conscience u Sénégalais yi xam ne njàngum diine dafa bokk ci ñoom parce que nit ki mënoo doon jullit te jullit bi nga doon diine ji mooy tax nga mën a xam nan nga koy jëfandikoo nan nga koy pratiquer loolu moom programme la boo xam ne ñun ñu ngi ciy liggéey. jërëjëf sëñ Babacar. Mm. Euh, ba tey it kuréel gi ndax yan action la defagul. waaw maanaam boobaak léegi yan yan mooy yi nga xam ne actes yi nga xam ne def na ko. Mm. waaw xam nga action yi ñu defagum euh, bi ñu fi ñëwee euh, deux mille 2015 ak léegi wax naa la def nañ fi benn tournée. Mm. def nañ fi itam benn conférence boo xam ne conférence bu mag la. Euh, mm-hmm. ñu ngi ko defee Masalikul Jinaan mm-hmm. woo kër diine yëpp ñu ñëw woo ay borom xam-xam jox leen ay thématique ñu ñëw traité ko parce que itam dafay toll moment boo xam ne boo jógee ci tournée dafay laaj fi nga jaar yëpp expérience yi nga fa jëlee ak information yi nga fa jëlee nga toog nag def benn benn benn ndaje bu mag wan Sénégalais yi nekkat kat yow lii mooy sa programme fii nga bëgg a jëm te itam mission bi sa mission lii la moo tax bi ñu paree tournée boobu lañ ci teg mooy ñu def benn conférence nationale bu mag bu loolu jàllee itam en tant que ay jeune intellectuel dëkk ci réew mi lépp loo xam ne actualité la boo xam ne dafa concerné diine ci réew mi ak ci àdduna bi loolu itam ay yes ci am ay position mhm. des fois danañuy def ay communiqué danañuy def ay sorties mhm. dañuy def ay émission ci ay plateau yu bari ci réew mi mhm. waaw moo xam événement bu mën a ñëw ci réew mi rek moo xam màggal la moo xam gàmm la moo xam événement religieux la wala loo xam ne question la boo xam ne par exemple misaal bi ma si mën a joxe mooy problème bi fi amoon ci diggante Iran. Mhm. ak euh, kii euh, nu mu tudd. Mhm. Euh, ñun joxewoon nañ suñu position. Mhm. problème bi nga xam ne itam moo fi amoon ci diggante Palestine ak Israël ak kii yooyu yëpp dinañ ciy joxe suñu position. parce que yooyu ay question la yoo xam ne dafa concerné. diine ji dafa concerné itam en tant que ndax jotul ci itam. comme réew mi ñu bari xamaguñu. AES. Ah, ndax sax am na judd na wala déet. ndax jotul ngeen def campagne de sensibilisation ah, ah. pour. yee nit ñi ak xamal leen dëgg-dëgg par pour bu ñu ah. jot ci kuréel gi. loolu moom defe naa ne ñu ngi fi parce que. Mhm. damay faral di dégg président Mame Cheikh di wax ne AIS bi mu juddoo 2015 rek léegi li mu fi defagum ci ay plateau ci ay télévision ci ay rajo ci ay site internet ëpp na cent et quelques plateau kon defe naa ne AIS tey Sénégal amul ku ko xamul. Mhm. loolu man xam naa ci dara parce que fu mu mën a dugg léegi ñu bari dañ may wax ah seen kuréel gi kat ñu ngi leen di chiffre. vraiment li ngeen nekk rafet na kontaan nañ ci doxal leen ñu ngi seen gannaaw. kon Sénégal nag AIS e kon léegi ci ci ci ci def ay plateau rek. Mm, mm, mm. ak ni ma ko mën a waxee wax rek ci la war a yem wala dafa war a teg ay acte waa xam nga àdduna euh, lu ñuy tuddee plan d' action. Mm-hmm. plan d' action ay étape la étape bu nekk yow yaay xool li nga war a def donc defe naa ne bi 2015 ba deux 2017 loolu yàggagul. Mm-hmm. donc ci campagne de sensibilisation lañ nekkoon maanaam comme ni nga ko waxee léegi fexe ba Sénégal yi xam. kuréel bi fexe ba xam kuréel bi lan mooy ay mission fexe ba xam kuréel gi lan mooy ay orientation am léegi nag bu loolu jàllee nag si la actes yi di door a ñëw actes yi nga xam ne moom ngay posé. Hmm. ci actes yooyu nag am na yu ma la ci junj sànq sama biir wax dal fexe ba daara yi nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyoon ñu fexe bu dundalaat ko. Hmm. fexe ba ngay xam ne tam jàngkatu diine yi wala jàngkatu arabe yi nga xam ne ñoo ngi jàngee ci réew mi wala jàngee bitim réew am seen ay diplôme bu ñu ñëwee ñu mën leen a intégré te itam permettre leen comme ni ñuy permettre yeneen étranger yi nga xam ne dañoo jàng yeneen i langue ñëw ci dëkk bi mu leen defal yeneen formation pour man leen a intégrer ci système bi loolu itam ci suñu ay combat la bokk parce que gis nañ ci suñu ci ñu bari ñoo xam ne mhm. dañu jàng langue arabe nekkoon bitim réew bi ñu ñëwee am na si ñoo xam ne xëy na amuñu sens dem euh, école normale mais am nañu yeneen compétence yoo xam ne état bi war na mën a ubbi ay filières yoo xam ne tey mhm. filières yooyu dina mën a permettre ñooñu tey par exemple ñuy jàng mathématique ci arabe mhm. ñu ñëwee bu ñu paree man a def ak science. waaw bu fekkee ni AIS tey jii amul xaalis bi. amul daanaka ñu bari ñu ko jàppale. nan lay defee lu mel noonu. xam nga dama jàpp xaalis nit ki mooy gis nga mooy régler dara waaye man dama jàpp ne xaalis li ko jiitu mooy idée. Mhm. waaw boo tegee idée. Mhm. concrétiser ko moo lay mën a permettre nga mën a am li ngay li ngay tuddee xaalis te loo gis ci àdduna rek plan mooy jiitu plan boobu nag moo lay mën a permettre nga xam yow li nga bëgg a def. moo lay a ndax kon yéen yéen a ngi fexe lu leen mën a soxale pour ngeen am dara loolu moom ñu ngi ci mhm. parce que xam na ñu ko jiite ñi ci nekk ñëpp ay borom xel lañu ay borom mhm. xam-xam lañu mhm. ay nit ñu am xelaat lañu te itam ay nit ñu am relation lañu te itam xam nañu àdduna bi système bi ni muy doxee kon nag lu ci nekk rek bu jotee nañ ko war a defee danañ ko doxale te itam loolu étape la boo xam ne ñu ngi ciy liggéey incha allah am nañu ay projet yu bari yoo ne mu ngi ci suñu kanam xëy na comme yeggaguñ ci tey ñu koy liggéey te pare bi mhm. am na détails yoo xam du ma mën a sori sori dëgg la waaw xam nga <laughs> am na ñu bari ci réew mi dañuy faral di wax ne bu kuréel juddoo rek dañuy jàpp ni comme kuréel yi fi jaaroon jàll rek lañ koy teg mhm. mooy kuréel yi xam nga bari woon na kuréel yu mel ni yoo xam sosu na fi mhm. ndax it yéen a ngi xalaat ci loolu am wuute ak kuréel yi fi daan jaar waaw xam nga kuréel bu tas rek dañu xool lan moo ko tas ak kuréel boobu ba mu juddu ba bi muy juddu lan moo taxoon mu juddu ñun kuréel bi bi muy juddu wax naa la léegi sama njël bi dañu wax ne kuréel bi li ko tax a jóg mooy ay nit ñu am yéene ci mbir te gisantewuñu yàlla jël kenn ci seen biir mu am yéene boobu mu jaral ko mu sol dàllam mën a coordonné loolu. sëñ maam Cheikh Mbacke kon gis ne loolu mm-hmm. muy sëñ maam Cheikh Mbacke Xaadim Awa Ba mm-hmm. kon nga gis ne loolu d' abord li ci ne mooy yéene waaw te yéene ci la jëf yëpp di baaxee ci la jëf yëpp di rafetee te yéene boobu mu ngi ci dem itam alhamdulilah ñu ci nekkee ba léegi. Euh, ñu ngi gis yokkute bu baax ci wàllu avancement. Mhm. ci wàllu li nga xam li nga xam ne moo tax indi idée bi ak itam ci ni ñu koy doxalee kon ñun am nañ rafet bu ñu jot bu baax ne euh, la dal ñi la du ñu dal parce que mbir bu xewee nga fekkee ko wala nga dégg ko. Mhm. war na laa mën a jox njàngat bala la cay erreur nga moytu ko ba du la dal. dëgg la loolu ñu ngi ci ñu ngi koy bàyyi xel bu baax. Mhm. ba tax na ñi ngi ziar bu baax a baax suñu maam Cheikh Mbacke mi nga xam ne moom moo jiite kuréel googu di mhm. mbooloo mi nga xam ni ñoom ñoo àndandoo ngir di liggéey liggéeyal tasawuf mhm. tasawuf nag bu ñu ko waxee moom mooy eh, ngay jaamu yàlla ba mel ni donte gisoo ko mi ngi lay gis jàngale mu yaatoo yaatu la te mooy loolu mooy ndono li nga xam ni eh, mag réew bàyyi woon nañ ko fii te muy loo xam ne lu ñu war a suuxat la moom la kuréel gi di suuxat di ko jëmbat ndax Euh, tey jii Sénégal ñu ngi jub mhm. ay lu mel ne ay élection mhm. te loolu defe naa kuréel gi am na lum ci war a mhm. euh, taxawaay bu mu ci am ndax ñu bari seeni woon nañ leen ci wàllu politique bi mais daa mel ni duggoo leen ci ndax yéen euh, li ñu wax politique dëgg-dëgg siyaasiya xam bu ñu ko waxee lislaam moo ko tax a jóg tey ñaawal nañ baat bi ba boo ko tuddee rek ñu bari dar seen nopp fekk ni baat la bu lislaam moom ñu jël ko yàq ko ndax politique boobu nag yéen pare ngeen pour réparer ko. Mhm. Ah, jërëjëf Diop ah, loolu moom am na solo lool comme ni nga ko waxee sénégalais yu bari ñu ngi ñuy interpellé yéen waa AIS lu tax def leen candidature ah, lu tax bokk leen ci élection yi waaye xam nga lu nekk rek yàlla moo koy tudd mu mën a nekk waaye ñun dàquñu loolu parce que réew mi ñu nekk muy Sénégal def naa ne bi Sénégal amee indépendance ba léegi. man damay faral di wax ne système bi fi nekkoon ba léegi moo fi ne te système boobu dëppuwut ak suñu ay réalité ñun en mhm. tànk ay sénégalais. Mhm. ñun en tant que ay jullit ñun en tant que ay doomu daara. Mhm. kon système boobu euh, ñun surtout ñun ñi nga xam ne ay doomu daara man dama jàpp ñun dañuy subir waaw dañuy subir lu métti parce que boo xoolee tey système bi fi ne ni muy doxee amul benn faveur bu mu jël jox ko daara amul benn faveur bu mu jo jël. jox ko nitu diine. Mhm. te it mën naa ci jox ay anecdotes yu bari yoo xam ne li fi am ak néew comme ni ma la ko waxee sànq ñoom sëñ Abdou Aziz Al Amin ñoom sëñ Moustapha Sy ñoom sëñ Mbacke sëñ Cheikh Mbacke Gaynde Fatma. Mhm. ñoom El Hadj Abdoulaye Niass ba ñoom bay Niass mag ñooy ak Cheikh Tidiane si Al Maktoum ñooñu ñoo ko fi xeexoon ba liñ ci am ak néew ñu am ko ci waaye da gis ne boobu ba léegi euh, ba léegi ñun ñu ngi continuer di biir loo xam ne euh, xëy na produit bu jógee bitim réew la ñu ñëw adapté ko te it méngoot suñu ay réalité mhm. mën nañu wax ne loolu si bokk preuve bi ma la ci mën a jox rek tey Sénégal boo doon xool école privée catholique yi fi ne boo ko doon chiffré par rapport li fi ne ci ay daara wala ci ay bërëbu jàngukaay diine da ngay gis ne bërëbu jàngukaay diine yooyu wala bërëbu daara yi ñu ëpp fuuf waaye suvention bi ñuy jox privé catholique yi. Mm-hmm. defe naa ne joxuñ ko tey joxuñ ko tey daara yi. Ah, xam nga ñële moom dañ leen boole ci système bi ñooñu benn mm-hmm. minorité bu ndaw lañ. Mm-hmm. ñun sax suñu diine moom dafa xajoo. maanaam loolu sax waxuñ ko pour naqarloo waxuñ ko pour nangam. waaye dañ koy wax rek pour benn analyse bu ñuy def rek. Hmm. wante réew bu fa ay nit bokk dëkkee def naa ne li gën a jaadu mooy bu yemalee mënta am itam ku ne na gis sa bopp ci système bi ni muy doxee. déedéet xam nga ndax yéen yéen a ngi liggéey loolu yéen ngi fexe. xam nga man damay def benn analyse. ñoo hmm. am na fu ma jëm yegg gu fa. Hmm, damay def benn constat. wane ne li fi ne. loolu rek war na mën a motiver képp kuy doomu daara képp koo xam ne nitu diine nga loolu maanaam poussé la nga jël benn benn combat de principe. pour combattre lu mel noonu parce que loolu insiste laa ko mën a jàppee loolu boo ko xoolee mu ngi ci réew mi beneen bi ci des mooy ñi nga xam ne ñoom ñooy suñu ay chefs religieux tey defe naa ne euh, président de la République am na article quatre-vingt boo xam ne moo koy protégé nga xam ne tey loo ko mën a wax dañu naan offense au chef d'État la ñuy wax article boobu dal sa kaw ñun nag ñi fi am comme ay symbole mooy mag ñi comme ñu mel ni Serigne tubaa ñu mel ni mm. Sidi Hadji Malick. Mm. ñu mel ni Maam Bu Kunta Ndiassane ak mag ñu mel noonu man tey jàpp naa ne réew mi jaadu na. état wu Sénégal protéger mag ñooñu ba kenn dootul jógee ci biir réew di jël ay kàddu yu ñaaw wala wax yu bon di ko teg seen kaw mu wut benn article boo xam daf leen daf leen daf leen di daf leen mhm. loolu moom dafa bokk ci suñu combat ñoom. beneen bi ci des itam ñu fexe ba intégrer njàngale mag ñi ci système éducatif système éducatif que réew mu nekk say ndaw yaa ngi leen di wutal référence mag ña nga am ci réew ma réew moo mën a dem boo demee ci arab yi am na lu ñu tuddee alxawmiya maanaam nga xam ne nationalisme lañ koy tuddee. Mhm. nga xam ne tey xale bu fa mën a judd seen dëkk yooyu mag ñañ fi am lu xale tuuti tuuti boo leen ko laajee mën lañ ci wax boo wax la ci loo sax yow da ngay yéemu ni xale boobu mën a xamee mag moomu tey nga gis réew mu mel ni Sénégal système éducatif bi ñu am njàngale mag ñi bokku ci nga xam ne tey amul benn xale booy mën a jël tey primaire ba lycée laaj ko ci Seydi laaj ko ci Serigne Touba laaj ko ci Maam Bundu Bokkunte Ndiassane laaj ko ci Serigne Jaamal mu man la cee wax dara benn parenthèse bu ndaw lañ ci jàngal te université lay doon. Mhm. te ñu koy jàng université defe naa dañ ne deuxième année la xam nga troisième année nga ko fay commencé jànge te loolu da ngay romb rek jàll. kon ñun dañu réclamer en tant que AIS en tant que kuréelu goo xam day yëngu ci diine njàngale mag ñi ñu intégré ko ci système éducatif réew mi te loolu normal la parce que réew mu nekk da ngay soxla référence bu mag ña nga am te gis nañ loolu amul ci réew mi. ndax loolu warut a doon ab xeex ab xeex xeex boo leen di xeex waaw loolu moo tax ndax ndax dafa war a doon rek ay wax yoo leen di toog di wax am ndax dafa war a doon ab xeex xam nga xam nga xeex dafa bëri mhm. nga donc d'annoncer xam nga tey maa ngi annoncé maa ngi d'annoncer loo xam ne mhm. am na koo xam ne maanaam xëy na xamu ko woon mhm. bu ko déggee tey dina ko xam ne ah ndek réew mi am na ñoo xam ne li ñu leen di subventionné moo ëpp doole fuuf ñi nga ñi nga xam ne ñoo gën a bëri ci réew mi am na koo xam ne xam ne dina dégloo tey dëgg la am na koo xam ne tey dina xam à partir de tey dana xam ne ndeke daara yi daara yi ne ci réew mi moo ëpp école moo ëpp école privée yeneen yeneen yeneen diine yi ci réew mi am na koo xam ne xamu koon mais dañoo xam tey am na koo xam ne itam xamutoon ne ndeke mag ñi ñu am ci réew mi amul benn loi boo xam ne dafa ni protéger nga xam ne tey ku dal seen kaw maanaam du taalib yi ñooy jóg dóor la waaye loi bi mooy jóg dal sa kaw am na koo xam ne xam ne xamu koon tey jay war na xam ne loolu lu war a am ci réew mi la beneen bi ci des mooy tey ndimbal li nga xam ne moom la ñuy jox ci ñun nit diine yi loolu kenn bind ko ci benn loi gouvernement bi fi mën a ñëw da dafay neexoo sëriñ bi. Mhm. bu gàmmoom jotee wala bu màggalam jotee mu yëgati ndimbal jox la bis bu yëgee ne sëriñ bi daf koo contre ndimbal loolu mu arrêté ko loolu nag ko war def loi nga xam ne tey par exemple bépp këru diine boo xam ne mu ngi ci réew mi li la état di jox loolu loi moo koy organiser. comme ni muy dimbalee ñeneen ñi nga xam ni suñ mbokk yi nga xam ne dañ koy voté ci budget bi. day ñi nga xam ni ay néewuñu ci lislaam Euh, te te nekk fa ay kilifa. Mhm. am na benn lu loi bu leen protégé boo xam ni. chaque bu ñu demee ci yenn événement yi da leen di mhm. jox ay ndimbal. loo xam ne par force la. waaw mhm. léegi yooyu yëpp xam nga tey xëy na du duñ ko bëgg a wax ñoom parce que buñ ko waxee xëy na nit ñi xam ko waaye ñun xam nañ ne loolu moo am ci réew mi. beneen bi ci des itam boo xoolee tey daara daara alxuraan yi fi ne tey ña ne di jàngale lan la état di yëkkati leen jox. réforme bi ñun bëgg nañ ko. parce que itam mais réforme balaa amoon dafa am ay daara cosaan yoo xam ne ñoom ñoo fi ne daara yoo xam ne loolu ñooñu kenn du leen réformé ñooñu dañ leen di dimbale rek fekk fañ ne nga dimbal leen yaa ngi dégg li nga xam ne nag moo mujj judd te la tax mu judd xamuñu lan la booy dem mais li ñu xam ci réew mi te muy ay daara yoo xam ne ay mm-hmm. mm-hmm. ah bi du dangay ñëw rek indi ay yoo xam ne kayit ya ngi cay bind ña ña koy jëmale sax xamuñu loolu lan la donc nit ki tey boo ko bëggee réforme da ngay dem fekk ko fa fam ne waxtaan ak moom xam lan mooy ay difficulté am xam lan mooy ay jafe-jafam jéem ko wutal solution nag à partir de solution yooyu nag nga jëm ko woon ah tey kat jamono lii la laaj bu ñu sañoon ngeen doxale bi ku dee moom itam bu demee ba gis loolu lu mën a ne mu ànd ci yow mm-hmm. te gis nañ ne loolu amul loolu lépp dafa bokk ci combat wu ay yes mm-hmm. ay combat yoo xam ne donc yooyu ñun ñu ngi ciy liggéey pour mm-hmm. éveiller conscience du Sénégalais yi éveiller itam état bi wan ne réew mi dafa am ñu fi dëkkee ñoo xam ne gis seen bopp ci réew mi di muy doxee te dañoo war a gis seen bopp ci réew mi di muy doxee loolu nag gis nañ li ko mën a changé mooy nga dugg ci politique waaw ah, politique bi nag comme ni ñu koy waxee yow nitu diine nga bis boo jógee ne yaa ngi war a def politique donc li ñuy wax mooy ni nitu diine a def politique mais nitu diine rek moo war a def politique parce que mm. yonent bi yaakaar mooy suñu référence mais état ak état la yoroon ak diine maanaam dañoo gëm ne fekk déedéet islam moom ku ci génne politique dara diine la yoroon waaye noonu ko mm-hmm. mën a waxee rek pour nit ñi mën a xam mm-hmm. nga xam ne tey imam bi mën a nekk médecin mm-hmm. bu jógee ci hôpital bi mu ne dem ci jumaa ji jiite lislaam noonu la mas di doxe kon nag tey bu ñu demee ba réew mi tollu fi tey def naa ne nitu diine yi war nañoo def politique waaye nag ban politique lañu war a def question bi foofu la nekk. ban politique la ñu war a def hmm. loolu moom mooy politique bi l'islam digle rek hmm. yaakaar naa mooy fexe ba nit ñi dund dund bu jaar yoon hmm. te loolu l'islam eh, ku ci génne politique ma ni dara dana ci des ndax lislaam mooy politique yaa ndax tey ci réew mi ñu nekk nga xam ni dem nañ ba yàqu deru nit diina yi hmm. nit diina yi loi bi amul lum leen lum leen préparer hmm. boolewu leen ci système éducatif bi hmm. ndax bu ñu nee éducation di subven di jox subvention wàllu école yi ak ñiy jàngale ci école yi te ñiy jàngale ci daara yi mel ni bokkuñu ci système boobu yéen ñi nga xam ni kuréel boobu ngeen yor jamiyatul islami la xidmat tasawuf seen liggéey war naa jëm foofu war war ngeen a taxaw ci xeex ndax loolu warut a nekk xeex boo xam ni Euh, lu metti lay doon ndax ñu bare bari dañ fay jaar wax ba sonn dem te amuñ ci saafara ndax loolu warut jaral waru leen jaral lu ëpp ngeen di wax képp képp xam nga loolu boo alhamdulilah ñu ngi ci ñu ngi sant yàlla bu baax parce que ñun ñu ngi sentir ne li ñuy wax état yi mu ngi koy bàyyi xel bu baax parce que yàlla def na ndaje yu mag yi ñu am ci këru diine yëpp dañ fay ne di joxe suñu ay message tey tey kër goo mën a dem tey ka nekk porte parole bi suñu mag la. Mhm. si ñoom lañ bokk ci njaboot bi lañ bokk. te itam lépp lu ñuy waajal balaa moo yegsi xalaat yi ñu koy waajale ñun si la ñuy bokk kon fi ñuy jaar ba mën a joxe message ñun xam nañ ko te it ñu ngi liggéey ci loolu te itam jàpp naa ne état bi mu ngi ñuy déglu bu baax. Mhm. Euh, léegi nag comme ni ñu ko waxee sànq euh, politique moom dafa nekk loo xam ne mëntu ñàkk ci dundu doomu aadama bi waaye nag comme ni nga ko waxee sànq suñu biir waxtaan yow miy en tant que nitu diine ban façon politique ngay def. parce que am na lu ñu fi gis loo xam ne loolu lislaam nangu ko ci niñ koy gisee ci politiciens yu bari ndax itam nit ki lépp loo xam ne yaa ngi koy wax na nekk loo xam ne daf d'abord na nekk lu dëgg ci yow ñu koy wax boo demee ba yàlla jox appareil bi nga xam ne itam moom nga doon laaj la nga waxoon war ngaa fexe ba boo toogee nga man ko man ko di def te it dañ ci am ay références yu bari yoo xam ne mënuñ ko joxee ci lislaam ndax ku mel ni Sidna Umar ibn Xattaab bi mu nekk amirul mu'minina nekk buuri jullit ñi euh, dafa am bés buuru Kisra yónni benn ndaw euh, mu ñëw am lu mu ko doon lu mu ko doon indil wax nañ ne bi mu ñëwee laajte ko ñu ne ko mu ngi da nga ci doon garab bu tëdd di nelaw mm-hmm. bi mu ñëwee ni mu yéemoo ci ni mu gisee si na mu xataab en tant que amirul mu'minin tëdd ci ron garab di nelaw kenn gardé wu benn sécurité bu ne ci gannaawam euh, mu ñëw mu ne ko xaddalta fa nimta màndute gi nga màndute moo la may ba kenn gardiwul la moo la mën a may nga tëdd fii di nelaw kon nga gis ne euh, njub ak justice mhm. état bu dox loolu moo ko dox te it l'islam loolu rek lay digle maanaam nit ki buñ la dénkee li ñëpp bokk ñi ko bokk ñëpp dañu gis sa bo seen bopp ci liñ la dénk waaye itam na nga yemale ñi yàlla def ñu nekk ci saron kilifteef tey itam islaam politique boobu la mas a dox la mas a dox islam politique boobu la la mas a def kon tey jàpp naa ne képp koo xam ne nitu dine nga bëgg def politique yu mel noonu di nga ko bàyyi xel te itam di wàccee sa bopp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàng nañ ci siira bés ànd nag ay saxaaba ñu dem génn ci àll bi ñu dem ba war a rey benn gàtt moom mu ne moo koy fees kii ne man may taxani kii ne maa koy togg nga gis toujours rek ni muy wàccee bopp ni muy wàccee boppam mm-hmm. loolu lépp li muy wane mooy ne njiit dafa am noo war a mel mm-hmm. ñi nga jiite itam dafa mm-hmm. war a am comportement boo xam ne moom la ñu war am ci yow mi nga xam ne yàlla yaa leen jiital boo ci jógee tuuti nga ñëw si ñu nitu diine yi nga xam ne ñoom lañ fi boo demee ci seen i kër boo demee ci seen i daayira boo demee ci seeni seeni seen i dëkk maanaam social ni ñu koy dundee nga xam ne tey fu nit mën a jóge ci àdduna boo ñëwee euh, di nga mën a xewlu di nga mën a naan di nga mën a passé fu da nga fa mën a da am foo fanaan donc nga gis social dafa am solo ci biir l'islam te itam social bu ñu koy wax génnul sàkkaat ndax sakaat benn ponk la ci l'islam boo xam ne li tax l'islam digle ko mooy ne jullit dafa war a bàyyi xel moroomu jullitam bi nga xam ne euh, donc amul wax nañu foofu sax boo xoolee alxuraan euh, euh, benn borom xam-xam dafay wax ne li tax yàlla fiir ci asaka mu ne xoolal moo ko digle ba pare santaane ñi ñu ko war a jox. Mm-hmm. maanaam moo ko digle ba pare séddileel ko bopp. Mm-hmm. waaw nga gis ne kon jullit ñi itam loolu dañ ko war a def nga xam ne tey boo xoolee àdduna bi man damay faral di wax ne boo xoolee réew yi gën a ñàkk ci àdduna bi mun nañu wax ne ay jullit lañ waaye réew yi gën a omal ci àdduna bi itam ay jullit kon da ngay gis ne jullit yi war a organiser tey jàpp naa ne amul benn jullit jël ci àdduna bi donc mu am ay jafe-jafe mu am ay problème loolu lépp ay xeetu politique la yoo xam ne nitu diine ki bu demee ba koy def yooyu moo war a nekk programme am mhm. te itam dañoo jàpp ne loolu dafa war a am te itam réew mu mel ni Sénégal nga xam ne tey ay quatre pour cent de musulmans ñoo fi ah, nga xam ne ay asaka am na ñoo xam ne ñu ngi koy génne waaye organisé wu mhm. tey boo xoolee réew mu mel ni Malaisie mhm. boo gisee tey mu bokk ci réew yi gën a raw ci àdduna bi ñoom tey seen asaka dañ ko defal ko ay agence nga xam ne tey asaka yooyu tey bu ñu ko dajalee ñañ koy jox dañ di organiser waaye ñooñu itam dañuy fexe dañuy fexe ba bu ngeen ko joxee ñoom itam ñu mën ci liggéey bu beneen yoone alal dañ dañ joxoon ñu mën ko rembourser dugal ko ci ay banque banque yoo mën a financer ñoo ba tey doo boo fa demee dañu wax ne wër fa gis ku ñàkk sax lu jafe la waaye da gis ne loolu dafay nekkaat loo xam ne dafay delluwaat ci lislaam ndax wax nañ ñoo Omar Omar ibn Abdul Aziz lu mel noonu la daan def maanaam fexe ba daan dimbali jullit yi fépp foo xam ne gis na jullit bu ñàkk nekk fa mhm. dana fexe mu dimbale ko ba mën a yoral boppam te loolu dafa yàgg ci lislaam boo xoolee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu jógee Màkka dem Madine euh, muhaajiroon ak ansaar boo xoolee ku ñuy wax Abdurahmaan ibn Awf mm-hmm. misaal bañ ci joxee ci wàllu wàllu siira bi nga xam ne ki ñu ko mbokkale wax na ko kaay ma xaaj sama genn wàllu alal jox la mm-hmm. kaay ma fase sama benn soxna jox la mm-hmm. mun ne ko ndax am nga sémmiñ mun na ko waa am naa sémmiñ mun na ko ndax mën nga maa tegtal àll bi fi mu ne na ko waaw mu jël sémmiñ bi tegtal ko àll bi mhm. muy gor di jaay ba bokk na ci ñi nga xam ne ñoo gën a woomal ci lislaam mu mhm. defee ñun nitu diine manqué wuñu argument am nañu ay argument yu wóor yoo xam ne tey jàpp nañ ne société bi ne muy Sénégal te ay jullit ëppee fi jàpp nañ ne argument yooyu tey Sénégal yi soxla nañ ko te itam li ëpp ci Sénégal yi ay jullit lañu te way gëm lañu te itam soxla nañ politique boo xam ne dina wuuteeg bi ñu fi miinoon a gis nga xam ne lii ci ëpp naxaate la ndax dañuy wax ne politique Machiavel maanaam science Machiavel mooy ne lépp loo xam ne yaa ngi koy wut maanaam lépp loo xam ne yaa ngi koy wut noo ko mën a amee rek dagan la ñoom mat yaaba loolu loolu la wax mais mhm. l'islam waxul loolu l'islam daf ne nit ki sa kàddu na méngoog sa jëf sa jëf na méngoog sa kàddu lépp looy wax na fekk ne man nga ko waaye lépp looy déggee itam maanaam boo ko waree def na ko def su mhm. defee yooyu ay argument la yoo xam ne ñun en mhm. tant que ay nitu diine xam nañ ko te xam nañ li ëpp ci Sénégal yi soxla nañ soxla nañ politique boobu tey mboo boo xoolee Sénégal bi mu amee indépendance ba léegi système bi fi ne moo fi ne dara changé wu ci man damay wax ne nit ñi amuñu problème mais appareil bi mu am problème. dëgg bëggee changé réew mi du ñu changé nit ñi mais appareil bi lañu la ñu changé. parce que appareil bi tubaab bi ñoo ko fi tegoon dem ku fi mën a ñëw it appareil boobu moo lay tënk. kon nag réforme yi ñuy wax ci appareil bi lañ ko war a jëmale. dëgg la te it loolu combat wu nitu diini kenn war a mhm. di changé constitution bi constitution bi ak a méngoog ay réalité mu mën a mhm. méngoog mhm. ni réew mi mën a méngoog ni Sénégal yi bëggee Sénégal du mel ko mu mën a méngoog itam ni ñu bëgg Sénégal doxe ko loolu ay Sénégalais loolu ay Sénégalais ñoo koy xalaat waaye itam basé wu ci réalité yi nga xam ne moo ne ci réew mi ak ni réew mi tëddee mën a réformer réew mi réew mi mën a doxee ni ni Sénégal yi mel ak itam ni réew mi mel. dëgg la sëñ Babacar ndax it kuréel gi nga xam ni moom mooy EAS moom am na ay relation ak nit diine yi nga xam ne ñu ngi ci biti réew. Hmm. ndax it defe naa loolu war naa nekk itam waaye balaa loolu. Hmm. réew mi it dafa yaatu ci ñoo xam ni ay nitu diine lañ. Hmm. ñoo xam ne sax xëy na ràññewuñ leen ci kër yooyu yëpp. ndax ñooñu yit daa yees mi ngi koy saytu pour. waaw xam nga jox leen loxo. ay moom dafa nekk kuréel goo xam ne. maanaam dafa ubbil jullit ñëpp buntam maanaam ay yees xam nga mbir dina di ko tuddee benn tur xëy na sax ki gisam yaatuwul mën naa jàpp ne ku bokkul ci tur boobu rek xëy na bokku ci waaye ñun li ñu ëmb mooy lislaam mm-hmm. te lislaam moo ëpp doole lépp te lislaam képp koo xam ne jullit nga rek yow li lislaam santaane li lislaam digle yow da ngaa gëm ne kenn warula la caa jiitu te alhamdulilah maam Cheikh Mbacke def naa ne nit ko am gis-gis la nit ko am xel la te itam ko am relation la. Mhm. te ñun ñu ci nekk itam macha allah alhamdulilah noonu la ñuy doxee euh, même bu dul sax ci ay nitu diine am nañu ay xarit yoo xam ne sax bokk ñoom ñoom diine. Mhm. dañuy demlante ñoom dañuy dikklante ñoom. te itam Sénégal noonu lañ ko mooñee boo xoolee ci jamonoy sëñ Fallou Mbacke ci jamonoy. Euh, mhm. sëñ Babacar Sy. def naa ne ñoom mag ñooyu bu ñu ci nekkee fal ku mel ni Senghor def naa ne bu ñu yaatuutoon dënn amuñoon gis-gis. du ñu nangu loolu. nit ñuy dem bitim réew di dem ci dëkku naar yi naar yi toujours dañ leen dañuy interpellé. ah yéen Sénégal réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent ay musulman lañ ngeen fal koo xam ne du jullit loolu fan ngeen ko teg waaye affaire état de loolu affaire état lu ñuy dénkaane te li ñuy dénkaane ki ñu jàpp ne mën nañ koo dénk war lañ koy dénk mm-hmm. te mag ñi lu gis-gis boobu la ñu amoon bi ñuy jox Senghor bi ñuy jox Senghor réew mi kon lislaam li muy wane li muy wane foofu rek mooy ne lislaam diine bu tolérant la mm-hmm. l'islam diine bu yaatu la l'islam diine bu xajoo la l'islam diine la boo xam ne mën na accepter ku ku ne ci loolu ngay ñëw boo ñëwee ci alxuraan yaa ngi fay jàng turu yonent yëpp parce que ñëpp ñoom ñëpp accepté nañ leen parce que ñoom ñëpp si ñun lañ maanaam ñun seen njaboot lañu. Mhm. ci loolu itam AIS ci noonu lay dox AIS dafa ubbeeku sur le plan national sur le plan international am nañu ay relations partout ñi ñu bokkal diine ñi ñu bokkalu diine ñëpp ñu ngi jaxasoo ñoom di dem naan ñoom. ndax AIS genn kuréel la rek am mi ngi sos ay cellules. waaw euh, actuellement nag comme ni nga ko waxee lu nekk rek étape la euh, bi ñu juddoo léegi matagul ñetti at. donc xam nga Suréel foog nga teg ko ci ay instances yu bari ci réew mi tey incha allah ñu ngi jëm ci beneen projet boo xam ne kër gu nekk bëgg nañ fa installer ay cellules yoo xam ne incha allah euh, dafay am ay représentants yoo xam ne ñoom ñooy ne ci kër yooyu parce que du yomb tout le temps lépp ñu koy defee dakaar du yomb itam tout le temps ngay déplacer membres yi ñuy ñëw Dakar tout le temps léegi nag ci loolu ñu ngi décentraliser di fexe gox bu nekk incha allah ñu monter fa ay cellules ña fa nekk. ñoom itam di mën a doxal su ko defee ci kaw di coordonné loolu yi moom ñu ngi ciy liggéey bu baax incha allah. Hmm. Babacar ñu ngi lay sant di gërëm ñu ngi ci mujjantalu émission bi xam naa ni dama lay bàyyi nga wax sa kàddu yu mujj muy message bi nga xam ni di nga ko lancé mboolem jullit ñëpp yi nekk ci Sénégal ak yi nekk ci bitim réew surtout. Hmm. pour ñu gën a bàyyi xel kuréel gi ak ñu jàppale ko. Hmm. message boobu lu mu doon. waaw jërëjëf euh, Diop beneen bi ma ciy dool rek mooy ne ñu ngi dëgmal ay élections yoo xam ne. Euh, élection yu coow li bari na trop euh, ñu bëri ñu ngi wax naan waaw nitu diine yi moom ren ni ñu sóoboo ci politique bi lu waral loolu mhm. ah, te tey defe naa ne loolu euh, ñi koy wax ñaar rek moo mën a am soit mu nekk fiiraange soit mu nekk benn menace menace bi nag man dama jàpp ne xëy na ñi koy wax ñi ci bëri ay politiciens lañu parce que jàpp nañ ne nitu diine ki moom ci daaraam rek la war a topp te nitu diine ki nga xam ne moom dafa jàng lislaam dafa jàpp ne lislaam lépp dafa jaadu ci moom te it loolu moo jaadu nga xam ne tey réew nu muy doxee ak fi mu war a jëm suba ñu dëkk ci réew ma kenn waru leen a boole kenn waru leen a jiitu ci xalaat yu mel noonu te loolu moo tax ñun en tant que ay nitu diine ah, ñu sóobu ci politique bi ah, sóobu bi nag dafa am ay points yoo xam ne moom la ñu teg war ne bépp candidat boo xam ne gis nañ ne yow respecté nga critères yooyu ñun pare nañ pour soutenir la loolu moom benn benn kii la boo xam ne ay yoon daf ko def kant kii bi mooy lan mooy fexe ba comme ni ma ko waxee sànq maanaam sauvegarder njàngale mag ñi fexe yi ba tam euh, ñu integre ci système éducatif bi li nga xam ne moo doon njàngale mag ñi waaye fexe yi ba tam mag ñi nga xam ne ñoom lañu fa am ñu nekk ay symbole kenn bañ leen a offensé ñu jël ay loi yoo xam ne daf leen di protéger ba kenn du dal seen kaw beneen bi itam daara yi nga xam ne moo fi ñu fexe ba daara yooyu état bi gën leen a dimbali. Mhm. état bi gën leen a jàppale. Mhm. comme ni muy jàppale école tubaab bi comme ni muy jàppale école privée catholique bi parce que ñooñu itam ay sénégalais lañ ci réew mi lañ dëkk tànn bëgg jàng jàng diine tànn bëgg jàng alxuraan doon ay sénégalais tey fay ay impôt di fay ay droit kon itam jaadu na état taxawu leen comme ni mu taxaw ñeneen loolu beneen ponk la. Mhm. beneen bi ci des itam ñi nga xam ne ay jàngkatu arab lañu am ay diplôme euh, jàngee bitim réew. ñu fexe ba intégré leen ñoom itam ci maanaam ci système bi te it loolu du lu jafe am na réew yu bari yu koy boo demee fu mel ni Mauritanie boo demee fu mel ni Gambie ay nit danañu jàngi Soudan am diplôme arabe nekk ay diplomate wala nekk yeneen kii bu ñu ñëwee même bu ñu déggulee anglais dañ leen intégré parce que li nga jàng benn la li leen wutee mooy langue bi rek donc boo ñëwee am na benn formation bu ndaw bu ñu lay defal pour mën a dugal système bi loolu itam dañu ñaan Sénégal euh, ko euh, yooyu lañu wax ne bépp candidat buñ ñu gis ne nangu nga accepté ne yow loolu mën nga ko da nga ko boole sa programme ñun AIS dinañ pare pour soutenir la. léegi nag loolu nag mhm. benn kii boo bu ubbi la boo xam ne ñu bari ñu ngi ñuy woo ñu bëri ñu ngi ñuy pour ñu toog ak ñoom euh, loolu ci suñu kanam la nekk xam naa ne incha allah bu ñu ba ci kanam danañ du ñàkk bés ñu del siwaat waat fi mhm. def bilan wu programme mhm. boobu waaye daal alhamdulilah ci turu maam Cheikh Mbacke ak ci turu AIS euh, ñu ngi am mbégte di am kontaan lool ci dalal bi ngeen ñuy dal ndax yéen suñu ay partenaire ngeen mhm. waaw ndax bi ñu def tournée bi ñun ak yéen yéen a àndoon xëy na sax jamono boobu man da fekkoon mu nekkoon bitim réew mhm. waaye bi ma ñëwee euh, wax dëgg yàlla maam si wax na ma lépp tànk bi na ma loolu dama mhm. ñun ak yéen ay partenaire lañ dëgg la ndax itam Sénégal ñi lay doxee ah, ñi bokk réew mi dañoo war a ànd ndax loolu mooy tax réew mi mën a dox réew mi mën a avancé liñ bëgg ci Sénégal suba ñu mën ko am kon ñu leen di sant di leen gërëm kontaan nañ lool ci dalal bu ngeen ñu dalal tey salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Babacar yow itam sant nañ la gërëm la mm-hmm. ci wuy si gi mm-hmm. ndax xaw naa jàmp ci yow ndax sëriñ maam Cheikh mm, ñi ngi koy sant di ko gërëm moom it mu fexe ba nga teew ci jotaay bi yaakaar naa ni lañ doon sentu ci waxtaan bi yëpp feeñ na ci donte ni kuréel gi yàggul mm-hmm. waaye nag eh, mel na ni am na solo lool yaakaar naa ni kuréel la goo xam ni moo lëkkale mbooleem ñi nga xam ni ñoom ñooy nitu diine mm-hmm. ci biir réew mi nitu diine yi nga xam ne naka jëkk ca cosaan mm-hmm. ñoo fi nekkoon ñooñu mooy kuréelu mm, eh, UAS AUS kuréel goo xam ne jamhiyatul islam yi li xidmat tasawuf mbooloom lislaam moo xam ne dañuy liggéeyal tasawuf suñ Babacar Cissé Eh, amoon nañu mbégte dalal la fi yow yaay coordonnateur bi Serigne Maam Cheikh ñu ngi koy eh, moom mooy ki nga xam ne moom moo jiite kuréel gi président kuréel waaye eh, AUS mbokk yi yéen tamit sant nañ leen gërëm leen ci saa yu nekk ni ngeen di toppee émission Serigne Touba ak altine bu jot ñu koy ànd ak yéen wax naa ne incha allahu danañu gën a waxtaane yeneen yoo xam ni soxal na leen ci wàllu social ci wàllu économie ci wàllu environnement incha allahu ba ci politique ndax damay wax saa yu nekk ni suñ ko tuddee ñu bari dañuy defe ni Eh, li ñuy wax xasante ak saagante ak rambaaj ak jëw ak fen yu mel noonu lañ ci jublu waaye déedéet dëgg-dëgg politique te loolu faw ñu def ci beneen liggéey incha allahu taala ñi ngi leen di sant leen gërëm di sant suñu alaaji Cheikh ci wàllu caméra bi ak technique bi jërë ngeen jëf ba beneen altine